parle de l'indépendance la justice également. Elle est indépendante après. Bon, pour moi, normalement, elle a tous les outils pour être indépendante. ah si si. xam nga lu tax ma wax la. tous les outils pour oui, indépendante gëm ko appliquer ko. mais man sa sa sa sa diagnostic laa bëgg. xam nga man li ma jàpp mooy xam nga boo ne est-ce que je indépendante day fekk justice bi peut-être nga mën na jël xam nga aussi justice des fois. ñun nga xam ay justiciable lañ il nous arrive très souvent bu justice tranché loo xam ne lii d'accorduñ ci ñu ne baaxut. bu justice tranché non maintenant vous êtes justiciable ordinaire comme man ak nga man xam nga man benn yoon la mas dem tribunal. <laughs> non bu non vous êtes devenu un justiciable ordinaire déedéet man j'étais avant. avant d'abord dans le gouvernement. da amoon privilège de de de c'est normal c'était le statut. je veux dire même malgré ça. man dama jàpp ne justice dafa war a indépendant parce que man loolu laa gëm. mais est que la justice sénégalaise ci fonctionnement am ci doxalinam est-ce qu'elle est indépendante. mais dama ne la man ci sama jëm boobu aw ma benn outil pour wax ne elle n'est parce que normalement ñoom war nañ indépendant mi ngi mel ni tey jii rek mi ngi mel ni yow sa service am na agent yoo xam ne yii normalement boo defee ay procédure ñoom kenn ku nekk bu ko respecté war a nekk ci yoon li li wax mooy est-ce que procédure nekk na fi ñu wax leen parce que lu mooy indépendance bi mooy maanaam ñu fexe leen loo xam ne lii du du ci ñàkk dana ci am yow bi nga xam ne bi li xew ci sa conseil des musées nga xam du ñàkk. boo demee mais mais man munuma ah oui li wax di man munuma aujourd'hui sur cette base ne la la justice n'est pas indépendante en tout cas elle a tous les outils pour être indépendante parce que juge bi xam nga li liy waral xam nga tey justice bi euh, boo demee tribunal dafa am ki nga xam ne kii moom moo fi nekkal société bi kooku mën nga wax sax que ci exécutif la dépendre mais ki nga xam ne kii moom mooy atte moom ci yoon kii atte dépendrewul ci kenn moom nuñ ko sax toxal. donc justice amul luñ ciy changé. am na outil yëpp pour moom boppam. non peut-être peut-être maanaam du ñàkk gëw ma ñàkk ñàkk lu luñ ciy changé gannaaw ñëpp a ngi koy wax mais man jàpp naa ne war nañ ko mën a xool pour xool li yëpp ñuy wax ñu fexe ba justice bi war a mën a def loo xam ne lii bu arbitré parce que loolu aussi mooy mooy mooy maanaam ponk bi wéral démocratie c'est-à-dire ñi nga il faut am. kii atte xoolal tey jii nii li am conseil constitutionnel jàpp naa lu ñu war a changer la ci élection parce que conseil constitutionnel mënut a nekk ci processus bi moom décider ba pare yow boo recourir er ci moom ngay dem. te bu waxee du ci dellu te bu waxee du dellu si loolu déjà loolu bokk na ci loo xam ne lii loolu bu dee loolu d'accord naa déjà que justice boobu indépendante et comment. non non dire que il faut xam nga justice même bu ni justice tëddee. dafa am ay processus bu ñu la attee am na benn juridiction boo xam ne bii moo sut boobu boo d'accord nga dem ci moom mi ngi mel ni li ñu doon wax tey ci affaire affaire CREI yi nga xam ne yow lañ attaqué yaa war indi preuve au lieu de faire le donc loolu laa wax ne loolu luñ day changé nañ ko bi coow li bari gis nga dindi nañ ko de de de parquet financier tey jii nii li nga xam ne lii moom la conseil constitutionnel ci wàllu élection jàpp naa ne du justice bu bu bu équitable gannaaw moom bu xasee jël décision kenn mënu ci delsi parce que du weddi boppam la ñu wax te moom ci te tey boo d'accordul ci moom ngay dellu tey ñun nii ñëpp ñi d'accordul par exemple def recours nee na tey ak suba dañuy def recours te kuy def recours doo dem ci kenn ku mooy moom mi àtte woon. ban architecture lañu war a teg lan lañu ñu teg leneen c'est-à-dire que bu fekkee conseil constitutionnel mooy saytu nañ ko na mujjee na am kenn kuy saytu avant. une juridiction intermédiaire. voilà boo xamee ne bii buñ ci d'accordul ñu mën a dem ci moom. waaye mënoo tëb rek boo demee ci moom boo d'accord ak yow rek ak lu mënta doon. comme comme comme comme rôle bi cour suprême am. par exemple ci différents judiciaires yi loolu mooy yoon. ci différents électoraux yi conseil am ko. mais loolu moo logique. parce que mënoo ñëw àtte buñ d'accordul del ci yow la ñuy del te boo d'accord mënu la dara ci degré àtte bi loolu lu ñu war a changer la surtout ci wàllu élection. ndax gis nga coow li fi am tey mënoon nañu am beneen juridiction wala beneen même direction whatever boo xam ne bii mooy saytu joxe avis boo xamee ne bii maintenant d'accord nit ñi mën a dem ci beneen juridiction peut-être conseil bu boobaa danañ dis lu mu décider mën nañ ko nangu waaye munoo décider tey même boo d'accordul amoo fenn foo koy jooyee boo demee ci ñoom it bu la neexee sax ban la jox musuwaar nga foñ say ngay fomp say rongoñ